asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan am mbégte ak contentement nekkat fii ci bërëb bu sell bi di Touba rawatina penc nga xamante ne rek moom di pencum Serigne Cheikh Béthio Thioune mu doon loo xamante ne nag at mu jot taalibe yi dañ fiy ñëw di andi li nga xamante ne rek moom moo di seeni i adiya seen i rawatina ñi nga xamante ne dañuy andi saa su nekk rek li nga lu ci mel ni ay nag waaye tamit lu ci mel ni ay gileem mu doon loo xamante ne dañ leen ko toppal ci màggal gi na yeeg lépp li nga xamante ne rek taalibe yi ñu ngi koy indi fii wutal ci fi nga xamante ne rek moo di bërëb bu sell bi bi dina len ko topal ngeen ci and sa su nek ak soxna Mati Gueye ñu ci dem euh, di dugg ci biir jumaa ji rawati na rek di len toppandil ay reportage yo xamantene fi ci biir euh, Touba lay am ñu ngi lay ziar ma ngi delo ziar soxna sha allah tour bi naka la euh, Serigne Falilou ma sha allah tay ji ñu taxaw ci bërëb bu ana mm-hmm. tay lan ngay yek waaw mbek ak sante Serigne Saliou mm-hmm. di fàttaliku rek sunu sang bi bu musan taxaw fi jógee fa serigne Saliou siyaar ko ba yegsi man maa nekk jëwriñ Touba amoo siis euh, maanaam sa sa yaram day daw ci fàttaliku bi sëñ bi doon ñu wax bis dina ñëw waaw kéemaan la maanaam boo ci boo ci tàbbee sax yow sax sax sa xel day demaat feneen waaye lépp loo xamante ni rek namoon nañ ko ci sëriñ bi sëñ Saal mi ngi koy mottali fii la sëriñ bi doon toog fii la kër gi nekkoon bu mosaan ñëw jóge siyaar sëriñ Saal bi fii yëpp day fees ñëpp taxaw mu ñuy wax la mu jëlee fa Serigne Saliou te boobu ba tey bàyyiwuñ ko man maa ngi jébbalu ci Serigne bi le 23 décembre 97 euh, laa jébbalu Serigne Béthio te boobu ba léegi maa ngi ànd ak moom di sant rek euh, tey ñaan suñu sang bi leeram gën a tàbbi ci ñun amin ah, di sant ak màggal waaye mu doon loo xamante ne mhm. à chaque fois rek yéen taalibe yi da ngeen di féddali coloré di ñëwaat fii ci bërëb bi rawatina nag di andi seen i ban yëg-yëg tey nga am waaw yëg-yëg gi ma am mooy yëg-yëg bi fi seex bi daa nekkee rek ndax euh, ab mburit yëg-yëgam mooy tawxiitam tawxiit gi ma am mooy saa yi ma taxawee fii sëriñ Béthio may xool te du mës a jóg ci man te yëg-yëg googu moom laay doxee moom laay dawee moom laay tëddee moom lay yeewoo ngir sëriñ Saliou mi nga xamante ni jël na sëriñ Béthio def ko muy sunu wasila mu sàcc ñoom moom loo xamante ni sànn ko ci ñun ñun saa yi ñu fi duggee dañuy gis ni sëriñ bee ngay gis motax duñu mësa ñu ci cyant gi dañ fi sax ak dak ba kérok sëriñ bi diñu wo mhm. mhm. allah di la jaajëfal di la jaajëfal bu wér. jërëjëf soxna si jërëjëf. Badiane ñu ngi lay ziar. ñaa ngi la koy delloo. mu doon ak ana ban nga am tey. waa xanaa rek di ñaanal sëriñ Mountakha mi yàgg fi te wér waaye doon lañ koy ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou yàlla na fi yàgg wér di ñaanal suñu wasila suñu sëriñ suñu ndigal ay ndamam xam nga ku ñëw tey fii di nga xam ne Serigne Béthio dafa dellu ba jëm kanam waaye delluwul gannaaw te ku yokkul da ngaa wàññi sëñ Sall ndigal nag dafa yokk te la ku ngeen xoolee penc mi xool ci biir kër gi li fi xew ci borom premier safar ba léegi xam nga ne sunu sang boobu wax dëgg yàlla fi ko waajuram wa tegoon rek walla ko jëlee jëmee ko kanam ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te gën a wér ay ndamam yokku waaye te daal waxuma sax ñun cantaako ni waaye kuy kuy jullit rek dégg nga fa tubaarkàlla ñoo ngi dund màggal gi bu baax a ci bernde yi nag premier safar ba léegi ñoo ngi bernde ñoo ngi sant bu baax yaa ngi sëñ Saliou mu yàgg fi lool mu doon ngi koy dund ngeen ay ay ay bernde di yóbbu li nga xamante ne moom moo di euh, bagage yi seen i kër ana ban ngay am en tant que njaboot waa xanaa santal sëriñ bi rek ndax loolu yàgg la nag ci way tedd wa ab musta am problème màggal nak ndax lu ca war rek da koy def ba dem nak ki sancaan yi li ñu gën ñor mooy sancaan yi nga xam ne fa tubaarkàlla seen i ñoo nekk nii sëriñ bi la fi dafa bàyyi woon rek ba léegi loolu ca la nekk moo tax ñun yëguñu lul mbékk ak cant mbékk ak sant sëriñ bi ak ñaanal sëñ Saal ndigal mu yàgg fi tëwéer waaw ñoo ngi santaat bu baax fàttali ñu tur bi waaw soxna Thiam mu sëriñ Béthio uh-huh. waajur taw feex mbàyyi uh-huh. ñoo ngi santaat bu baax sëriñ bi di ñaan mu yàgg fi tëwéer uh-huh. yéen seen i xéewal yokku yàgg koo ànd ci barke sëriñ Béthio boobu léegi ñoo ngi ci kër gi ñoo ngi togg di jox mbooloo mi di ko bégg bu baax nag sant rek ñoo sant baax a baax. dellu di sant yàlla. waaw di sant yàlla suñu borom lépp mooma waaw lépp mooma. macha allah ziar nañ la. ñu ngi leen di ziar na si. maa yéen a am tawféex bu wér baax a baax a mu nekk tey mbégte moo xamante ne yéen a koy dund ana lan waaw fii moom gars yi suñu sama jëwriñ yi muy jëwriñ Abdou Gueye ak jëwriñ Momar Ndiaye ak man Alioune Kébé ñoo àndoon liggéey bi nga xam ni Serigne Saliou Ndigal Thioune moo ñu ko sant maanaam dafa buggoon ci bésu màggal gi xam nga jannatu fii lay ñu bëri di ñëw guddi màggal cant gu mag moo fi am fii boo xamante ni dañ koy jooyal Serigne Saliou Serigne to daan ko def ay at Serigne bi bi mu ñëwee wéyale liggéey boobu léegi nag mbooloo mi daje fii ci guddi màggal gi dañuy bëri moo taxoon nag ñu ñu fas yéene leen bernde toggal leen ay bernde yoo xamante ni ci la ñuy bernde mbooloo mi ñëw ci guddi màggal gi yëpp moo waraloon nag yi ngeen di gis ak ndugg mi ñu àndoon ko nag fas yéene ànd ko lu yàgg profité si joxaale sëriñ bi addiye goo xam ni moom mooy taaral jëf ji ndax joxe addiya sëñ Tuubaa dafa ni bokk na ci lii li muy maye fekk fu dara nekkul woon mu def fa fekk fu lu tuut nekkoon mu bëril ko fekk fu lu bëri nekk mu barkeel ko kon joxe addiya lu am solo la ci ab murit ñu koy soññ suñu bopp di ko fàttali suñu bopp di ko fàttali mbokku taalibe yi di ñaan sëriñ Tuubaa am nangul ñu liggéey bi ñu yàgg ko ànd yàgg ko teewe ci barke Serigne Saliou ak barke Serigne Béthio mi tax ñu koy def. ndax mën nañoo xam addiya gi lan ak lan la. waaw addiya ji moom addiya la rek maanaam ginaaw jëf ji addiya ji ay koppar la. waaw ay koppar la rek waaw yoo xamante ni dañ ko jox sëñ bi ngir jàppale ko ko ci liggéey bi ndax sëñ bi moom dafay joxe rek gis ngeen fii ni meloon démb ci ay nag ak ay gileem sëriñ bi joxe na loolu lépp condiment yi boo duggee ci kër sëñ bi muy lu jëm ci li ñuy toggee nag yi maanaam soble pomme de lépp mi ngi woon mi ngi ci biir kër gi mais loolu yëpp dafay fiy jógee sëñ bi day joxe di joxe ba màggal gi weesu day wéy di joxe donc day baax taalibe yi di ko jàppale ci liggéey boobu donc loolu rek la addiya bi. mu doon loo xamante koy def saa su nekk ana nan ngay digal mbokku taalibe yi. waaw mbokku taalibe yi li may digal sama bopp rek mooy dañuy soññante ci ñu gën a yeesal suñu pas-pas ci liggéeyal sëriñ bi gën a euh, gën a maanaam def yitte liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ Saliou nee na ab taalibe mënoo koo jëriñ te ko. donc nañu sax di jëfal sëriñ bi te di ko liggéeyal ndax noonee rek la ñu mën a amee ngërëmu. baal ñu fàttali maa ngi tudd Alioune Kébé. voilà ànd ko ak jëwriñ Abdou Gueye ak jëwriñ Momar Ndiaye yéen a ko gisandoo mbokki internet yi ñuy seetaan fii lañ nekkoon nag ci bërëb bi nga xamante ne rek moom moo di pencum Serigne Cheikh Béthio Thioune gis ngeen rek li nga xamante ne moom la taalibe yi wax rawatina li nga xamante ne moom la Serigne Cheikh Khadim Thioune wax mu nekk loo xamante ne nag ci ndigalam waaye tamit ci ndigalu taalibe yëpp lépp li nga xamante ne andi woon nañ ko fii ci biir tente bi di ci ay bernde di ci li nga xamante ne rek moom moo di ay nag ba ci ay gileem gis ngeen ko te defe naa ni lépp loolee rek neex na leen mu doon loo xamante nag fi yem ndax saa su nekk dañ leen koy toppandil di waajal dem ci yeneen kër waaye tamit waajal lekk dugg ci biir marché bi xool li nga xamante ne moom moo di ambiance bi ngeen ciy topp saa su nekk ak soxna Mati Gueye ci kanam tuuti ñu ñëwaat ak ci yeneen i reportage